assalaamualeykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax encore une fois di wax ngeen wéy abonné te ngeen activé cloche bi ndax ngeen di mën a jot suñuy vidéo parce que marché yi dañ leen koy toppal au temps réel ñu ñëw ci marché sénégal rwanda actuellement fa daanaka marché bi léegi mu mi temps zéro bi partout la euh, actuellement nii Euh, gis nañ Sénégal boo xamante ne seen taxawaay défensif baax na défensivement franchement ils sont très solides actuellement ni euh, face équipe Rwanda boo xamante ne mën naa wax seen équipe A bi la indi tey ñun ñu indi suñu équipe mën nañoo comme ni koy gars wax équipe B bi te ñu tenir leen en échec ci première période bi franchement euh, baaxagul na mais tout am na lu ñu war a lu bare bari surtout ci l'entrejeu bi ci créativité bi gën a créer ay occasion également di ko concrétiser donc lucidité boobu noonu il faut mu am également ci transition yi ñuy gaawal bi muy euh, récupérer bal bi mais il faut contre attaque nga koy exploiter notamment gis nañ Pape qui course bi mi ngi franchement nga gis que ni kii am détermination am na bëgg-bëgg ngir gagner match bi mais également buñ gagner euh, dafay nekk loo xamante ne day dugg ci histoire victoire bu nara historique lay doon donc ñooy ñaan deuxième période bi bu ñëwee Sénégal gën a yëkkati niveau bi euh, aj niveau bi franchement euh, même si que équipe bi ñu yor ak équipe Rwanda bi dana xaw a metti mais ay joueurs yu baax lañ yor yom potentiel